opportunité euh, foo xam ne di nga ko euh, feeñal soo ñëwee nag ci liggéey télévision broadcasting dafa xaw a yaatu yow lan nga ci gën a bëgg is it um, talk show ndax yow news reading nga bëgg ndax news reporting moom la ci gën a neex ndax um, programme directing ou programme coordination lan moo la gën a neex ci liggéey media Eh, gis nga loolu sama ko laajee dama siy kontaan trop eh, man foo ma yóbbu damay dem. ok ok. man when it comes to the media. yeah mhm, mhm. man foo ma yóbbu damay dem. wax naa la fii léegi nii ne man I am naturally for media waaw. yow daal kenn du la téye dem rek. man damay dem dama tarxiis ba pare. <laughs> waaye bilaay dama dee dama dee indi ku nekk waaye tey tamit ñu ma indi métti nañ <laughs> non waaye affaire bi yëpp loolu la. Uh-huh. parce que liggéey télévision faaw rek nga gëm. liggéey télévision faaw nga xam nit ñi ngay waxal. Uh-huh. naka ngay waxee ñoom lan ngay wax ah loolu yëpp dafa am solo. te e, foog rek ah, tamit nga bokk bëgg liggéey bi tamit sonna ci mun cee jàng. Uh-huh. parce que xëj rek pour toog wax nii dafay xaw a yomb waaye nag lu bëri ngi ci biir. ah bala ngay ñëw mëna tok rek wax ko ñëw def ay programme mhm. eh, yombut dafa am lu bari lo xamne dinañ ko ci jàng dina ci yow Bernadette ku la xam-xam la ci radio ah, ñu la doon dégg yeb dégg la ci radio mhm. làkk bu nekk dégg nga ko ndax man ci radio bi fa la gisee rek nga dal di ma neex ma bugga la nga bëgg ma bes bu waji ji rek dal di ma cioncu ma rom tay ñu sot ñu tok on télévision ñu gis nga indi ben programme jola mu doon programme boo xam ne euh, foog yaakaar naa ne mbiri aada la mooy gën a feeñal loolu nekk loo xam ne lu am solo la euh, meyal suñu mbokki joolaa yi ak ñiy seetaan am tuuti ci programme bi lu tax yi nga indi programme boobu noonu tijan kakinga kuchila kusuma sumfanfan ni salemite wakami mi ilako mi wonorum programme wewe mi injeni lako lako simites mi jike mhm. na apo jike si programme sankene hani jifan sankene nya programme sankene kame kusuruwaka komoninga jula di corona sekon ne mi mbawla bu kana kolla malegan ko janja mu yetu bana pu sanke ni sanke na mol noko jebe fama kullewul fama kumanja baju ke jaja ti fukil ha nula yalo bulung fam fam sutu ko barkete juwe yola karange dum kanam kenam mi woto malege radio kana kuja tende jande mare po kana programme de television ne eh? am mhm. kana fama ngole kuju wan kujame ndi waso wal kuju di kuchire kole meda na wanu juko won fama film wanu jamme nyayo kammi tomi de kana kumbo nu ragalum ragalum yo kuringum tate bare tijan ko mhm. bo konde pisal ani fana la konde de follow kam alaji mursanya be ka fanta fola fo jillen mhm. kaka anu manyeme kueta jumata sumo sum fafan nano san pamami benare nenu jabe kanu problema amu kana programme de télé yoto bide fomo sene misembe sembe nana letum ne mi he wadi jebe chamo wani jebe wana wana sabla kwa pambi wonoro mhm. wae mi ni program programme mi na pepe karibe yo yo kam mi nyami wani mangu kuja mara kusofu ka an dole tu na apu mamu nyes ku eh, ku kengol ku kengo rambe ni bar mitaka amite e jumo lawla popola mo jafukil benedict lu lu lu lu am solo nga fi wax euh, mu fàttali ma nag ki nga xam ne moom mooy alaaji Mamadou Sagne ndaxte àddina lii rekk la ah, demal maa ngi ñëw ndax at yi passé nii yëpp ñoom moom la woon waaye xam nga bu yàlla soxlee jaam soxla rek mhm. eh, lu ci gën a bari rek jaam mooy ñaaka mhm. loolu moo gën ci jaam bi mhm. ah, ñu ngi nii di màggal si li nga xam ne moom mooy eighteen years of um, um, existence ndeysaan yàlla tax na eh, moom fekkewu ko waaye euh, mu def fi ay liggéey yu rafet yoo xam ne ñun foofu lañ teg suñu tànka ba tey ñuy màggal li nga xam ne euh, moom mooy suñu anniversaire bii nii kon ñu koy ñaanal fi nga xam ne moom foofu la nekk euh, na ko gënal fu mu jógee fii mu doon ab nit ku baax mu doon nit koo xam ne ku oyof la ndeysaan ma waroon na mun a envisage ne bu fekkoon ne yàlla daf ko fi bàyyi woon ba bés ni ki tey xam nga rek dina doon doon leneen waaw parce que ndeysaan dafa bari woon xatar xatar day daf la mun a bëri woon xatar xatar mm-hmm. bañ rek lu lu lu yàqu mm-hmm. di kon bu doon moom la mu ngi fii nii di meeg ne xam nga décoré Sénégal loolu yëpp nit ki da nga cee sant yàlla ba pare mm-hmm. jàngee ci wan nañ ma ne nag lu ma am ci waxtu daanaka jeex na tey su la waroon a jox programme on télévision ban nga cee tànn soo paree nag nga mayee man lépp loo xam ne day bëggal nit ñi rek da pare lépp loo xam ne tamit dafay njëriñ askan wi surtout ndaw ñi entertainment entertainment news man foo ma yóbbu nee naa la damay dem Tijaan bàyyi ma. <laughs> boobu neex na. torop. meyal. Tijaan man nag lu may meye mooy xam nga sama yaay naar la. <laughs> waaw. te xam nga man néew ma ne dama yeb naa ñëw waaye dama ci taq ba ba pare. <laughs> Euh, nga ci man ne may noo daj ma ci peinture pare kenn mënu ma setal ma set. Euh, dafa amoon benn naar musta dem duplex. oh sorry for my manners please. <laughs> non dama bëgg a nee ma dee neex. léegi léegi mu dem duplex gis nit ñi di waayeen ak yooyu noonu mu dem mu puus ñëpp mu ne ko mu ne leen may ma mu dem nag naan ha ha ba seen ha ha di tëb rek léegi. <laughs> after ñëpp naa waa kii fa mu nii mu ñëw mu ne ah bii Gambie bii neex duplex dafa toj. <laughs> waaye yow sa bi nag. duma la bàyyi nga meeyee ko in joola <laughs> da ngaa si olof mbaa nga meeyee si soose <laughs> ah, man man Daniel dama baala nga njaagoy suma ma am lay waaw waaw waaw waaw njaa njaago dafa demoon France France <laughs> mu gis mu gis gars yi ne le café soo ko duga dafa ne le café soo ñu jox la li see tegu moom xamut hmm. mu tam a ñëwee ak ko sam duga naan ko e le café <laughs> ñu jox ko café ah le ah, mu waa le café ñu jox ko café mu toog gisul ganaar bi ànd ñu ne nii dem nam nam rundi net ah, wàcc mi nii nji nji nji eh, ganaar <laughs> ren mu saani leen ba dem ñu ne du café rek la bëgg a njaago ba nii France nii <laughs> waaye métti na de waroon naa mun a sànni café ba rek a ganaar ba ak yéen noonu te toog France. amul ganaar <laughs> moom dafa des ne la café dañ laa jox mooy semaine amul ne la café ak leneen la day ànda. <laughs> kon nag ah, jërëjëf ah, kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax ndax te yéen tamit gis ngeen léegi léeg dama si ma diggi programme bi laa leen bamax dal di leen dugal ci biir studio bi waaye ngeen am ab style boo leen indi indi benn feem affaire bi neex ñu foo ñu ree lii mooy ngoonal lii moo tax ñu am ah, indi programme bi ñu foo ah xam nga rek ah, kontaan na ci yeen bu baax ba baax te xam naa ne nag ah, mbokki seetaankat ñu lay laa xel ah parce que suma sañon nak dama la doon xëcc ci bir entertainment xam nga rek ku nekk fi mom ku nekk waaw xam nga ku doon Kéba Diba ak Francis mhm. ñom dañ ko doon xëcc yóbbu ko ci walum news bi waye man nak ci walum entertainment bi la ko doon ñoddi waye waaye ci yeen ñepp bu baax ba fanaw mo moom maa ngi fanaaw maa ngi news bi dañ ci news bi neex na ma torop li ma nekk di def ah? waaw ci jaar nee naa la. ngoona jërë ngeen jëf ëllëg anniversaire bi na ñëpp ñëw na ñëpp toog si tele yi. ñu def affaire bi nice dafa ëllëg nag di ngeen gis fi nga xam ne ëllëg ñu ñooy ubbi dance floor bi parce que half past ten right after news bi dañoo am lu ñoo ooyee cocktail party fii ci biir studio bi live mm-hmm. dañuy indi lekk yéeg naan yéeg xam nga musique bi dal di jolli mm-hmm. man ak